ay ca mbokk yeeg xarit yi suivre solution TV solution info am nañu mbégte ñëwaat comme niñ ko baaxoo di defee altine bu jot ci l' émission des émissions ñu fa yéene ci ànd ak saa njoogu meng mu daal di indi xalaatam ci yenn euh, waxtaan yi nga xamante ne nii daañu koy faral di amal euh, moom nag euh, dana ci ñëw joxe ci xalaat bi nga xamante ne nii gis na ko ci waaye balay loolu dañuy daal di dem nag ba diwaanu Thiès kay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ziar leen ñaanal leen jàmm. jàmm ñaanal ko itam sunu sëriñ bi sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahat mbakke yàlla suñ boobam yàggal ko fi loolu mu ànd ak weex defal ko jàmm defal ko njabootam wis ko si biir këram te koy ñaanal mboolem xalif yi ci biir réew mi yëpp nuyu nañ mbokk internet yu ñuy suivre saa su nekk si bàyyi xel émission des émissions ñu daal di koy nuyu moom Alaaji Sanjoogu Meng euh, Alaaji maa ngi lay nuyu di la ziar te lay ñaanal nag jàmm ju sax dàkk. am mbégte ak kontaante ci yow. <laughs> dem ba Touba di nuyu xalif général des mourides sëñ Mountakha di ko ñaan yàgg fi tànn ak wér. allahumma waaye di nuyu di ziar suñu sëriñ suñu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke di nuyu sénégalais yi nga xam ni ñu ngi ñuy teewlu ak fu ñu mën a nekk. Hmm. di am ci ñëpp mbégte kontaan kontaante sénégalais yi nekk ci biir réew ak ñu nekk bitim réew. Hmm. waaye di nuyu bu baax techniciens yi nga xamante ni bii ñoom lañu àndal ci émission bi. macha allah léegi ngay ànga. ayca mi ngi noonu jërëjëf Meng ñu nuyu ko nag moom Mbaye Assane Mesere mi nga xam ne say su nekk rek euh, yitte bi muy jox bi la mission ak di ñu ci soñu euh, tey nag Abdou Top ak Lay Diallo daañu waxtaanee euh, ki nga xamante ne nii moo di Daouda Mine moom nag ab chroniqueur judiciaire la adduna jëm ci affectation wu général Kandé boobu nga xam ne boobu ba tey mi ngi wéy di ami coow. nee na nag journaliste yi war nañu xam ne constitution bi dafa wax ni président de la république moom mooy nommé bépp poste civil wala militaire nee na nag li ñu wax ba jaar jaadi jël responsabilité bi teg ko ci ndodd premier ministre bi nekk na loo xamante ne nii lu jaarul yoon la daañu tegtal leen vidéo bi ngeen déglu ko su ko defee moom njóogu me ngi daal di ci indi xalaatam dàmbooj moom nag euh, àdduna ci doxalin bi nga xamante ne nii ñenn ñi ci presse beeg chroniqueurs yeeg journalistes yi ak euh, ay opposants euh, doxalin bi nga xamante ni nii moom gis na ni ñoo ngi koy doxalee nee na jaarul yoon te dañu nangu benn yoon euh, nit di toog tiim micro di wax lu la neex dem na sax ba teg ci ne képp ko xam ne def nga loo war te def dañu la war a duma ba noppi teg la daal di lay dugal ci biir kaso yi moom Bouba Ndour ñëw na ba tey ci fixe yi nga xamante ne ni premier ministre bi wax na ne daañu ko fay. moom nag nee na télé yëpp nekk ci ay jafe-jafe euh, am ay problème mu déficitaire moom nag nee na euh, problème yi nga xamante ne ni euh, ñoom TFM dinañ koy jànkonteel dana koy jaral mu daal di jël otoom Euh, daa di dem ba ca kër freeram boobu di Youssou Ndour ngir rek ñu waxtaanee jafe-jafe yi ba day daal di jël li nga xamante ne ni moo nekk ci gafakam daal di ko koy jox ngir rek ñu daal di mën di régler yenn situation yi nga xamante ne ni ñu ngi koy jànkonteel euh, kon nag topp dañ koy daal di dooree ak de Mine mi nga xamante ne ni ñëwaat na ci affectation général Kandé euh, wax li nga xamante ni journaliste yi ñu ngi koy faral di doxalee te jaarul yoon ñu daal di koy déglu te déew. est-ce que Daouda da nga jàpp ni sunu confrères yi dañu prêter le flanc. je trouve nañ ma baal ca la may wax parce que encore une fois euh, bugguma woon dugg ci ay détails. Hmm. mais bu fekkee rek dañuy dañuy wax objectivement su fekkee ne yow xam nga ne la constitution te dit le président de la république nomme à tous les postes civils et militaires. yow ñu nommé un général de l'armée ngay ñëw ngay imputer la responsabilité de cette nomination là à un premier ministre ça pose problème parce que le premier ministre n'a aucun pouvoir pour affecter un général à ñu Delhi wala nangam ak nangam c'est de la responsabilité du président de la République même à supposer que tey jii tey jii le président de la République en vertu de l'article 50 de la Constitution mën na déléguer une partie de ses pouvoirs au premier ministre am na ay pouvoir yu nga xamante ne mënu ko déléguer le président le premier ministre te parmi ces pouvoirs là mooy le pouvoir de grâce le fait que moom mooy le chef suprême des armées mënu ko déléguer il est de la responsabilité du président à part de ce moment là journaliste information bu ma ko jotee dama ko jël avec des pincettes parce que xam naa ne en aucun cas mënul nekk il peut proposer un certain nombre de choses mais la dernière décision reviendra au président public et par conséquent à part de ce moment là je me nag moi je nous tous nous sommes journalistes nous avons cette obligation là xam nga bu ñu amee benn information surtout bu fekkee ne une information sensible dafa war a sunu sunu sunu sunu sens sunu sens ba ñu war ko saytu saytuwaat ko saytuwaat ko saytuwaat ko avant ñu koy ñu koy ñu ñu koy teg la euh, place publique. ayca mi ngi noonu ji dégg nga kàddu yi nga xamante ni nii Daouda Mine yëkkati na ko jëm ci euh, coowal général Kandé mi nga xamante ni nii ginnaaw ba ñu xëyee yëgle nañ affecté nañ ko fële ca New Delhi euh, dinay xëy chaque jour nga gis information yi ni ñuy évoluer jëm ci nag euh, tey jii mu doon wax ne bépp citoyen rawatina nag journaliste yi nga xamante ni nii seen métier la ñuy def war nañu xam xel ni. Euh, mbirum nomination ñëpp xam nañ ni ab président de la république moom moo ko war a nome tey jii nii suñu jëlee lépp sëf ko ci ndodd kii di premier ministre bi moom jàpp na ni loolu nekk na loo xamante ne nii balaa ñu koy bind waroon nañ ko xoolaat bu baax a baax. waaw tout d'abord ñuy féliciter Daouda Mine bu baax. ci mm-hmm. leeral yi nga xam ni indi na ko. Mm-hmm. waaye itam mu wane ci tamit euh, ni boo nekkee ak ay nit mm. bu ñu juumee da ngay nangu ni juum nañ parce que njuumte nangu juum day am mais nga nangu ni juum nga mooy li jafe Sénégal loolu mooy lu ñu xam ne mooy sunu problème maanaam du ñu mën a nangu leeg-leeg ne juum nañ man nag damay jàpp sax ni ñi ko bind juumuñu dañuy tappale hmm. parce que juum dafa am ak tappale am na ñoo xamante ni dañu bëgg a dugal ci bopp nit ñi maanaam da ngay gis ni tribune ko bind tribune mi ko bind njiit la politicien la le quotidien boo xamante ni mhm. euh, euh, day politique peut-être que ni ay journalistes di ko bëgg a bëggal mhm. ak tamit ñu bëgg a benn jeexi jaaxal ci xelu nit ñi mhm. que ni le président Diomaye doxalut waaye kiy doxal mooy le premier ministre Ousmane Sonko loolu lañu bëgg di ko def ci bopp nit ñi jàpp nañ ni loolu buñ ko defee rek war nañ mën a ruube sénégalais yi ba noppi ruube ñi nga xam ni ñooy ñi nekk ci kaw eh, ba li ñu war a doxal duñ ko doxal xam nga ñaari affaire moo am ci àddina te man jàpp naa ni le président jomaay ak le premier ministre Ousmane Sonko ñoom gars yi ñu leen a xëcc ci terrain boobu xam nga pareen saay ñu jéem a dugal benn mbir moo xam ni jubluwaay bi lenn mooy nekk jubluwaay parce que pareen saay bu nit di def dara da nga wax lan mooy objectif lii ñuy def lan la parce que bu ñu indee dañu bëgg a indi kën yi président doxalut waaye premier ministre mooy doxal léegi bu loolu amee bu duggee ci bopp président wala mu dugg ci bopp premier ministre lekk projet bi d'abord mhm. tàmbali yàqu la mhm. tàmbali naa yàqu parce que ni mu tàmm ni muy tàmbalee yàqu bu fekkante ne bi tey ñoom loolu jéem nañ ko dugal ci bopp nañ ñi bu fekkee président euh, buy def dara mi ngi jéem a wan ni moom mooy président wala premier ministre di def dara di jéem a moytu ne bu ma ko defee mbaax président du ko gisee nii rek yëf yi day yàqu bu boobaa liggéey bi day yeex yëf yi dootul dem <laughs> moo tax ma ne jàpp naa ni président ak premier ministre moom dépassé nañ niveau boobu moo gën bu ñu bëggee yàq defe naa il faut ñu gën a muus tuuti mm-hmm. mais nii ñu bëgg a yàqee euh, li ñuy jéem a yàq munta yàqu mm-hmm. parce que jàpp naa ni bu ñu demoo bu ñu demee ñoom déglu ji président démbam bi muy wax mm-hmm. ñu suivre ko dinañ xam ni nit kii du ñoom li ñu foog pare saa nag nit day àtte nit selon moom ni mu mel ak ni mu bindoo mm-hmm. ci lay xayma ni nit kii warta mën a war naa mën a nangu lii wala mën naa def lee waaye bu fekkente ni bi yow tey fa waaj a nekk nekkoo fa mënoo comprendre kooku mooy kan moo tax ma wax leen ne leen nañ dem déem a déglu ji li nga xam ne mooy kii mm-hmm. xam nga tey ji mm-hmm. loo xamante ni jàpp ñëpp xam nañ ni président moo ko amee pour quelle raison ab journaliste taxaw war a bind lool ne premier ministre moo def ni et ñu dugal si yeneen yoo xamante ni mel ni sax dañuy wax lool ne ba noppi général Kandé bañ et puis dafa war a attaquer cee dugalaale affaire u Casamance mhm. ne dañ koo mere mu mhm. euh, seen problème diggante premier ak général bi mhm. fii la démarré parce que kii nee na kii waruma lii kii mën a parce que Casamance vengeance la ak et yooyu mooy yi nga xamante ni moom lañ bëgg a indi ñu bëgg ko indi ci jamono joo xamante ni bii nag loolu warta am ci réew mi man moo tax man ba wax ne. Hmm. bi ma gisee gars yi woote set setal dama ne set setal bi ñaari mbir la am maanaam dàq nañ dut bi nga xamante ni moom lañ kii parce que Sénégal dañoo gaaw xam nga fan yii paas dégg nga ñu ne ceeb yokk na. yokk na waaw dégg ñu ne soble amut. ba boole si courant bi. da ngay déglu dégg nga ñu ne courant baa ngi cher. Hmm. ceeb amut. Hmm. kii amul. gis nga ni ñu ne la jàpp nañ. ay activist mooy ñi nga xam ne moom lañ jàpp. wëlbatiku ne la woo nañ journaliste ya maanaam dañ la bëgg a wax ne la réew mi. mi ngi ci problème bu rëy. léegi nag ñu jekk-jekk nag dugal ci ne armée ba sax ña ngay am ay kii boo seetee yëpp nag nga defee ne nag du mbir yoo xam ne bii mbir yu coordonné la maanaam maan jàpp naa ne ñiy manipuler yëf yi xam nañ bu baax li nga xamante ni moom lañ doon def ak résultat bi doon def. moo tax réponse bi mu nekk réponse bu extraordinaire parce que réponse su set setal bi. Mm. dafay dàq loolu yëpp da ngay wan opinion bi ne leen ak sénégalais yi de mm-hmm. président bi lañ àndal parce que woote na mais xool leen li génn xool leen nit ñi ni ñu génnee ak tamit ni ñuy joxee seen kii loolu réponse la boo xam ne réponse bu extraordinaire la ba tax yi ñu mm. doon wax noonu yëpp loolu da koo dàq mm-hmm. mais xam nga yaa ngi koy wax euh, sànq di wax ne euh, ñenn ci ñi moom journal yi ay ay politiciens euh, ñoo ñoo ne dañoo faroo woon ak ñi fi jot a jugee mm. parfois itam mën nga wax ni sax dañu ñëw pour jaxasalee na askanu Sénégal mais est-ce que parfois du nekkul ñoom itam dañu mer frustré bëgg seen mer ak seen frustration ñu déverser ko ci seen kaw ba lépp lu leen naqari woon amaana comme ni ñu ñëwee nii ñoom ñu amoon ay ambition comme ñii niñ ko amee woon ba gagné loolu metti leen ba tax à chaque fois rek dañuy xool nu ñu mën a jaxasee ñaari nit yi. Euh, pour ñu jéem a jaxasee ñaari nit. waaw ñoom Sonko ak waaw loolu loolu loolu moo mës a nekk seen jubluwaay. ñoom d'abord bu njëkk mosuñoo bëgg Pastef am candidat mm-hmm. ñoom ku ci nekk dafa yaakaaroon ni opposition bi ku ci nekk dafa yaakaaroon ni boo jegee Sonko mm-hmm. yow après yow lay liggéeyal mm-hmm. waaye Sonko moom bi mu liggéeyee lépp mooy eh, dafa def liñ wolof di wax dërëm bi génnut gaal gi maanaam eh, Sonko jariñut lu dul Sonko looloo tax ñu ne la jomaay Sonko Sonkoy jomaay mais loolu la kenn mënutoon a imaginer ni lu mel noonu doon na am que ni yow nga jiite ab parti dem ba toll fenn fi wëlbatiku di tànn ci parti bi parce que li ñu yàgg a xam loolu musul am. Mm-hmm. moo tax bi mu tànnee ci parti bi ñoom jaaxle nañ parce que bu njëkk bi dañ doon naan il faut mu am plan B il faut mu am plan B mais mm-hmm. ñoom bi ñuy wax il faut mu am plan B. plan B bi séentuwuñ ko woon mu génn ci biir Pastef léegi nag mu génne plan B ci biir Pastef mm-hmm. léegi nag bi ñu génnee jàppoon nañ ñi waa Pastef danañ fipp dana tas Pastef doon benn bloc ñoom ñëpp amul dara lu ko mën a tas mhm. parce que ñu ay gis-gis mhm. foofu lañ waroon a xam léegi nag ñu dem nag ba jéggi yëf yi mhm. ñoom ñu bëgg a taxaw am neneen noo xam ni ñu koy doxale mais bii li ci dangereux mooy bëgg a jël armée léegi dugal ko ci yëf yi diggante bi loolu dafa nekk loo xamante ni bi ñi ñuy bindloo yi tam euh, bu ñu la joxee information mu leer la ne lii tamit am na ay manquement est que war na tax tamit ngay bind loo xam ne yow amoo ci sax gëstuwuñu dara ay land parce que loolu ci seen jëm bopp la waruñu ko bind waaw waruñu ko bind. Mhm. donc nag nguur gi def na ci lim ci war a def te journaliste yi dañu pareen saa yi ñoom ñooy wax correct. Mhm. naan ko war nañ ñoo yóbbu correct da bu ñu kii amee waruñu woo journaliste fii. Mhm. te barki dem boo njaay correct am na journaliste bu mu fi joxoñ kooku taxaw ne correct. football ko fële ne ko du ngeen dara maanaam respecté wuñu ko ñoom ci seen jëmmi bopp kuréel gi ñu teg ne moom moo leen war a lijjanti bu teen tegee daan duñ ko faale ba noppi léegi nañ ko bàyyi bu ñu leen woowee ca gendarmerie wala ñu woo leen ca police ñu ne non non de journaliste kenn correct a ko war a woo te bu leen correct woowee duñ dem. duñ jëm wuy respecté wuñu correct. mi ngi noonu ayca jërëjëf Meng dañuy daal di xuus nag ba tey ak kii di dàmboo ci kàddu yu mu yëkkati jëmale ko ci nouvelle opposition bi ak ñenn ñi wax li nga xamante ne nii jàpp na ni jaaduwul du yoon ñu dem déglu ko te dem. ku fi nekk di def loo xam ne jaaduwul dañ lay duma. duma yu leer nañ teg ko ci yoon sans def dans l'arrogance moo tax ñu nguur gi di lay layee ko cëpp-cëpp ñëpp nañ leen leen duma dugal ci kaso bi man loolu mooy sama position ñëpp ci kaso bi lañ leen war a dugal parce que reewande gi nekk nii mënta continuer loolu il faut que ça soit clair reewande gi ma gis fan yii ñoom ñu nekk ko ñoom régime mu Macky Sall mais ñàkk nguur gi dafa jar lii rek parce que ñoom ñëpp avantage ndoon am amatuñ ko ku ci nekk 4-4 euh, ya nga yoroon premier ministre nee na nan ko delloo si nangu nañ ko ku ci nekk xaalis ba nga doon pasar pasaree te mus a nekk sa xaalis léegi mënatoo mënatoo mënatoo ko am parce que nekkatoo autorité yoratuñ yoratoo ndombay tànk pour ñu jox la alalu Sénégal da ngay am ay ndombay tànk ngay liggéeyal Sénégal léegi ñoom ñëpp teraanga yéen doon am daal lañ bëgg tëdd muy dox quoi tëdd seen kër yi leneen Macky Sall doon defal muy continuer Bassirou Diomaye Faye di leen ko defal loolu mënta ne yéen ñëpp ku fi waneeg reewande ci kaso bi lan lay duma ci kaso bi lan lay dugal ba noppi damm caaba ji yóbbu ca géej ga gis nga fii réew mi ci yoon lay tegu un gouvernement day ferme te ce gouvernement là est ferme ku xam président Bassirou Diomaye fay xam premier ministre Ousmane Sonko xam ne ñàkk ñu la ñàkk ñu fayda kenn mun leen a xoqatal bu ngeen yaakaaree ni mën ngeen fee napp nit ñi ak di xoqatal nit ñi pour ñu dellu ginnaaw ci li ngeen war a rendre compte dangeen nax seen bopp vous allez rendre compte réew mi ku fi jaayog reewande ay Aïcha mi ngi noonu alaaji kàddu yi de la dàmboo ci yëkkati xaw ma nag ba xam ni mu ko waxee noonu la war a demee wala de te moom sax fi nii dafa am ay mbir yu ñu ko jox pour mu war koo régler mhm. donc taxaw di yëkkati yenn kàddu yi te pourtant démb dem mel na ni ci ñu doon bañ li ni mel ci la bokkoon. waa kàddu yi moom euh, nekk na kàddu yoo xam ne man jàpp naa ne daam. Euh, dafa juum euh, na moytu tuuti façon kàddu yi quoi façon façon kàddu yi. dafay am lu muy fàttali. Mhm. te li muy fàttali baaxul quoi. xam nga yoon moom bu ko jiitu ci kii woon. Mhm. bu boobaa lekk day mel ni yàqu yi parce que yu mel nii la Moustapha jaxate doon wax. te bi mu koy wax it wax dëgg fa yàlla da ngay nekkee ci beneen côté bi dangay ngay xam ni kàddu yi rafetul kon kàddu yi moom euh, jàpp naa ni. lu mu war a éviter la. Mhm. di ma maaka yow ñi nga fal. Eh, moom tontu na boppam sax ci biir kàddu yi parce que wax na ni le premier le président de la république ñàkkul mm-hmm. la mm-hmm. boo xoolee le premier ministre xam ni ku am fulla la mm-hmm. waaw loolu nag moo la war a wan ne la kon bu leen jiitu ci li ñu war a def parce que li a def danañ ko def te danañ teg yëf yi ci yoon waaye yow boo nekkee rek di wax naan nañu day mel ni Moussa Diakhaté muy ñëwaat rek nañ ah, tëj nañ def nii nañ duma nañ def lii nañ def laa loolu baaxul parce que après yow yaay ubbil say adversaire fu ñuy jaar pour jam la mm-hmm. bu ko defee dañ naan ñiikat ngeen doon wax pourtant lii lañ doon bañ démb mm-hmm. te pourtant démb ñu ko doon def moom da ko doon kaas sax waaw waaw mm-hmm. doon kaas donc parensaay moo tax bul nekk ci benn position rek sopp xam nga àddina waaw li ëpp solo ci àddina man dama bëgg ñun ñëpp ñu àndandoo bëgg réew mu jag réew mu tegu ci yoon man jàpp naa ni sax autorité yi ci loolu lañ ne parce que ni ma leen gisee ñuy doxalee ñëwuñu pour jaay kenn doole. déedéet waaye dañoo ñëw pour. ku yoon amal affaire yoon teg la ci yoon. parce que bu ñu ñëwoon pour jaay doole. Mm. Euh, danañ doon nañ doxalee neneen. Mm. mais boo leen gisee ni ñu doxalee. Mm. fexe yoon tegu ci yoon ba ñëpp yam ci ay àq. koo xam ni yoona la te nit ñi yëg ni kat kii li mu am yoon la amal problème. mais du dañoo bokkul gis-gis dañoo bokkul parti mhm. moo tax ma di la tëj wala da ngaa loolu xam nga ko wax loo xamante ni wax ju ñaaw la mhm. sénégalais yëpp xam nañ lu ñaaw ak lu rafet sénégalais yi lii wax ju ñaaw la. Mhm. bu yoon jëlee dogal tey yoon jël na dogal ci ñoo xam waxoon nañ wax joo xam ni wax ju ñaaw la. te am na ñoo xam ni bu doon ñoom la fi mu toll nii tey bu doon nguur gële passé mën nañ laa te 6 mois yoo xam ni duñ la àtte nga xam fi nga féete. mais le fait que ñu jël leen yóbbu leen franc grand délit acte leen. xam nañ fi féete tey ñu ne leen. dem leen euh, tëdd ñetti weer yoo xam mm-hmm. ni moom ngeen di tëdd. Mm-hmm. loolu lenn la ci nit ñi xam ni. Mm-hmm. wax ju ñaaw baaxut. moom sax mi ngi mi ngi mi ngi wax euh, ci affaire togg muy dox bi. moom dafa mel ni dégluwul sax Sonko parce que. moom waxoon na ko daanaka dootuñu nangoo ci benn nit di lekk alal joo xamante ne. non non yooyu yëpp moo tax am na yooyu yë yu bari yoo xam ni xam nga pareen saay. Euh, da nga war a xam ni parensaay da ngay nekk di wax kiy dawal naan ko bàyyil fii bàyyil fële moytul lii moytul lee yow yaa koy wax. da ngay dem koo koy dawal léegi nag daam dafa yëgut ni maman bi mooy dawal. Hmm. booy dawal léegi fi mu toll nii du soxlaatut ngay wax yenn yi. Hmm. da agir quoi maanaam dañuy jëf. te fi mu toll nii tey jege na. régime bi jege boo xamante ni bi tey am na loo xam ne même bu fekkee ne ay xalaatam la ci yenn yi mm-hmm. mën na leen koo wax ci suuf quoi soxlawul mu di ko wax ci kaw mm-hmm. dafa am yoo xam ne soxlaa tut nga di ko wax ci kaw quoi léegi nag bu fekkee ne lu jëm nag ci fésal mm-hmm. li nga xam ni fi mu toll moom dafa war a taxawee beneen position muy position wu di fésal li nga xam ni moom la nguur gi di def mais bul nekkati ci côté défensif comme façon bi mu doon waxee bi muy opposé wu non soxla tout façon boobu daal façon bi soxla mooy fesal li nga xam ni mooy acte yi nga xam ni nguur gaa ngi koy teg mm. nga koy gën a fesal mm-hmm. parce que am na ñu bari ñoo xamante ni bi tey ñu ngi taxaw parce que gis nga fesal action gouvernement dafa baax parce que dafa am ñu bari ñuy taxaw pour noyer li nguur gi di def mm-hmm. te fi mu toll nag daam nag dafa war a ko mm-hmm. xam ni léegi rôle mooy di wane li nguur gi def mooy li fi waa euh, APR échegoon parce que su defut ndànk rek APR président Macky Sall def na ay mbir yoo xam ni amuñu temps pour fésal ko parce que ñu ngi nekk di xuloo mhm. léegi yow fi mu toll nii soxla wootoo nga nekk di xuloo mhm. mais da nga soxla di wane action gouvernement loolu mooy tontu xulookat yi mhm. bu fekkee ne bi ñu ngi wax di xuloo te amuñu ku ñu xulool bu boobaa dinañ ñëw jéem a li nga xam ne moom ki bu boobaa nag yëf yooyu daal day fes fi mu toll il faut changer communication seen youtube am bi mu yoroon bi muy opposé wu dafa war di continuer non waa waaw waaw bu <laughs> continuer nag di opposé wu euh, finalement day metti euh, day kii quoi fi mu toll nii moom dafa war a yëg nii mm. moo ñoo nekk ci nguur gi mm. ñooy doxal mm. jamono jii nag lan moo war ñu ne ah premier ministre wax na lii ministre nangam ministre bi nga xam ne moo jëm ci wàllu mbay mi def na lii def na lii ministre bi nga xamante ni bii moo jëm ci wàllu lépp lu jëm ci wàllu inondation yooyu lan la prévoir di teg yëf yi di ci wax nit ñi di ko di leen ko leeral comme que am nga public bu lay suivre. Mhm. ngay leeral yëf yooyu. comprendre nga. lu jëm ci wàllu sécurité yoon fi mu toll nii ni ñu koy tegee ngay wax jéego yi nga xamante ne bi ñu ngi koy def la def def ca jam ñaajo di leeral yëf yi mm-hmm. comprendre mm-hmm. point yooyu mooy yi nga xamante ne bi man pour man ci la mm-hmm. war a expliquer te jàpp naa ni bu ciy wax loolu moo ëpp solo dina ku fi dof dof lu la duma dinañ la def nii ah. parce que yooyu mooy yi fi gars yi doon wax la leen te duma sax sinon da ngay xëy xëy rek nit ñi mere la mere la te ah. du ko jar te duma peuple Sénégal peuple bu doy waar am na noo xamante ni bi boo koy waxee dañ naan ah ñii nag léegi ñu ngi loolu mën nga créer waat nit ñi jékki-jékki rek sopparñi ko donc il faut moytu mi ngi noonu te duma sax nag yoon dakaa santaanewul daam kay xawma lu ko dal mi ngi noonu dañuy kay jeexale nag ak euh, kii di euh, Bouba Ndour di ràkk ci Youssou Ndour wax na nag jafe-jafe yi nga xamante ne nii ñu ngi koy jànkoonteel ci seen télé boobule ñu dem déglu ko te dellusi barke Seydina Limamou télé yëpp déficitaire amul benn télé bu fi am xaalis ku fi fëgg sa dënn di jaay milliardaire da ngay nax sa bopp barke Seydina Limaamul Mahdi billaahi wallaahi taalaahi damay taal sama oto dem ci moom ne ko problème bi dafa am mu ne ma xam naa ne new fi li ma am a as néew dem leen ngeen def ko sama bakkanu doom non rawal rawal il faut que nit ñi comprendre jamono dafa dox. perception bi ñu am ci télé yaakaar ni perception man damay romb nit mu ne ma. waaw eh, dañoo perception bi dañuy yaakaar damay romb nit mu ne ma ay eh, doo leen ma jël. ma ne ko mais <laughs> si si je ne pas la vérité. duma ma mhm. parce que dama fekkee on a des centaines de personnes ici mhm. je damay chaque jour damay liggéey si di leen xool mhm. naan yàlla bu ba euh, bato bi suuf c'est ce qu'on vit c'est le quotidien du ma rëy wax ko c'est la vérité non defal ndànk rek quand je regarde der je veux que bés bu ma euh, àll traité comme ni nga koy waxee ah mu mën a am dara y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent dans leur vie oui et qui ont choisi décidé d'investir. non non def ko ci banque bi toog di xool lan ci am. am ñoo xam ne xamuñu sax xaalis. yàlla xam na ko billaahi wallaahi taala lépp lu ñu am rek ñoom li leen di dundal mooy ñu créer benn affaire. y a des centaines de personnes qui travaillent ici. Mm. je me réveille le matin je dis man duur laa sant. j'ai mon frère qui est je dis ku ko waxul tu n'es pas honnête. ku fi yaakaar sénégalais bi fi toog si kii naan nañu kii yëg ak dara amu fi lu ñuy fay. soit da ngay di tëj entreprise yi je vous tout de suite ku il faut pas avoir honte de dire la vérité entre waxuma technique waxuma dara. fay salaire ci entreprise yi ah. gars yi dañuy kot koti te képp dégg naa ay nit jël seen baat ne télé bi musique moo ko def. wii tey bu Youssou Ndour amul woon Sénégal ak bëri jeunes yoo xam ne duñu am ambition. ak bëri ñu mu inspiré. des gens poli des hommes politiques. et je je dama leen di dama leen di wax que ni la responsabilité encore. de ce régime qui est le régime de tout un peuple mhm. vous avez la responsabilité di ñi nga xam ne sax dañu bokk ci yéen bu ñu koy ngeen leen nekkatuñu opposition voilà mi ngi noonu alaaji nag mel na ni coowal Fix yi moom euh, yëngal na kër yu bari euh, ba waral euh, tax kii di Bouba Ndour daal di nag dem doxantu ca kër magam jooju joojule nga xam ne moom moom TFM wax ko jafe-jafe yi ñuy jànkonteel nee na sax léegi pour ñu jëlaat nit recruter sax problème lay doon ndax jafe-jafe yi nga xamante ne ni am nañ ko ci biir kër yi. waaw xam nga TFM moom. li leen daal hmm. eh, wax dëgg fa yàlla hmm. ñoo ko teg seen bopp ah. waaw si naka li leen daal wax dëgg fa yàlla bu dee dëgg rek ay dëgg hmm. ñoo ko teg seen bopp TFM yu Buuba Nduur tey mën naa jooy mais démb moo doon ree waaw wax ni TFM mooy réal <laughs> day rek moo ko doon wax. <laughs> TFM. formé day ñëw fekk la ngay liggéey ci tele siiw. mu ne la ñaata nga am nga ne nga ñaata mu ne la fay naa la ko ñett. déng dajale ñooñu ñëpp yóbbu leen ci teleem. dëgg la nit ñi ëpp genn wàll ga liggéeyuñu feeñuñu sax. Mm-hmm. maanaam dañoo ña nga rek. xañ na la ko te jariñoowu ko. Mm-hmm. maanaam day fekk sa produit bu baax day fekk sa produit bu baax mu débauché ko yóbbu ko indi ko ok bu ko utiliser tuuti teg ko nale mm-hmm. maanaam xañ la ko parce que kooku dafay nekk di fayeeku waaye ah. liggéey lootu ko ah, xaalis mi ngi dem mais amal amalu la njëriñ amalu ko benn njëriñ d'accord loolu nag moom la dajale mu nekk loo xamante ni bii lu bari lool lool lool la mm. loolu mu dajale noonu nga xam ne lu bari la moo tax tey buuba mm-hmm. bu ñëwee nag ne day jooy. <laughs> alaaji jooyu dafa jafe-jafe non li mu wax nii li wax nii loolu la quoi comprendre <laughs> li mu wax nii. Mm. maanaam boo ñëwee ne da ngay jooy loolu du problème boo xam ni nguura la ko teg. ah mais moom jooyut parce que saa su demee si frère bi frère bi. jë jëkkati ci gafakaam jox ko kon kay mi ngi régler problème bi parce que daf ne. Ah. maanaam dafa bëgg a wax ne bu ñu fayee impo mm. danañ tëj loolu la bëgg a wax. waaw mais xam nga. loolu moo jaatuwut. maanaam tey seen problème ñoom. impôt bi la mu ñëwee. Mhm. fii la ñëw buub li nekkoon wal fajari. waaw ñu ne déet mu buub 2S la fa nekkoon. Mhm. maanaam dafa buub yëf yi. affaire ba noppi di wane ni dafa am doole. dañoo man te yi moom mi ñoom ñi pare woon nañ pour tëj ay télé. ah, ah loolu moom ñi ñu buub na indi découragé. découragé mënoon na am. Mhm. amoon mënoon na tëj mënoon nañu tëj ñoom ay télé. Mhm. ñoom xalaatuñ woon loolu. Mhm. et pourtant ubbi nañ am nañ licence am nañ seen kii mënoon nañu former seen loolu. comprendre nga mais ni ñuy jëlee ci yow boo sàggoonul rek kër ga bu dëgërul dëgg boo dëgëru dëgg kër ga tas. waaw parce que bi ñuy bopp bi fii la jóge woon ci El kenn mënu la xam ne tax bi muy bopp bi fii wal fajjari fii ñëpp la ñu woon tamit. daal di yóbbu daanaka moo tax boo gisee. am na lu bari loo xamante ni bii tey buñ taxawee tamit ñoom it eh, di ko wax nii tey man xalaatuma nibbis ni bi dina ñëw léegi nag li ciy doy waar mooy deux mois après départu Macky Sall nga soo ko yuuxu <laughs> kon dangay mel ni yaa ngi dëggal sax hmm. li nga xam ni moom la la internet yi doon tooñee hmm. parce que internet yi ñu ngi doon wax ne duñu fay TFM lii wag laak lële xaw ma dëgg la xaw ma du dëgg mais dafa mel ni yaa ngi koy dëggal. Ah, mais alaaji soo que peut-être que ni am na lu bari loo xam am na yeneen wax yu bari dégg naa fii ñu naan am na tele yoo xam ni euh, état moo yoroon seeni salaire loolu nag man awma ci dara lu ko confirmer ba tey mhm. mais wax yii ngay dégg mhm. ak yuuxu yii ngay dégg mhm. tey ñi nga xam ne bi ñoo gën a jiite yuuxu yi tey dañ leen doon jiiñ ne leen yéen ak état. ngeen mm-hmm. ay liggéey. da ngeen doon liggéey. Mm-hmm. mais mais alaaji est-ce que tamit li tiital may mun a tiitalu leen parce que mënuñu xëy président bi taxaw ne leen baal naa leen ñuy espérer ne dootuñu ko fayati après nga xëy xëy ñu ne il faut ñu fay loolu tamit mën na tax man jàpp naa ni ah. même bu fekkee ne baal nañ leen mm-hmm. pour man bon bu ñu leen fayee ko peut-être bi day gën a gaaw rek mais même bu fekkente ni bi tey dañ ne leen baal nañ leen mm. ci kanam tuuti dinañ soppi ni ñuy doxal di nga gis ñu bari ñoo xam ne dinañ leen wàññi. Hmm. parce que peut-être que ni xam naa li yi doon wax am na fu ñu ko tippee am na lu am am na lu am ci mbir yi. Hmm. maanaam xibaar yi ñu doon wax yëpp ñu ko doon weddi. am na lu ci am. Hmm. parce que boo seetee ñi yuuxu ñu gën a foor ci yuuxu gi. ñëpp mooy loolu. mais en tout cas dafa am loo xamante ni bii tey euh, ñoom ci seen jëmmi bopp. am na am nañ seeni i jafe-jafe yoo xam ni seen i jafe-jafe bopp la. Mm. waaw xam nga nag di def ay toj xam nga mooy comme li ñuy wax ni rek ci nguur yi ñuy wax ni rek. naan moom fële dañoo jël nangami nit ñoo xam ne liggéeyuñu woon. waaw mais tamit amul kenn benn télé bu ñu fi war a at dékkul loolu. Mm-hmm. nga jël say nit ñoo xamante ni bi liggéeyloo woo leen. Ah. parce que y des talents yoo xamante ni bi ña nga fa. Mm-hmm. am na ñoo xamante ni bi dañoo mujj sax dem ubbi seen yëfi bopp ne ca. parce que xam nañ ni. liggéeyatuñ ba noppi di jëli seen salaire. Hmm. te ñooñu média yaa ngi nii bari na. mais dañ lay fey loo xamante ni te et puis xam li gën a garaaw mooy parents yi nga ñëw fenn gis koo xam ñu ngi ko doon fay benn deux cent mille trois cent mille mu ci doon suturlu nga ñëw ñamal ko benn. ne ko six cent mille sept cent mille. xam nga keneen mënatu koo jël di ko fayaat dàngam léegi moom day defe ne bu war ñëwaat feneen day wax ne war naa am nu mu gàtt gàtt mm. dinaa am li léegi nag moom dafay préférer toog rek mm. te ñëpp nga leen di signaler ay contrat yoo xam ne donc li mauvaise gestion la ñoom bu ñu ko jiiñ mukk ne euh, lii état la kii ñoom ah, ñoo def mauvaise gestion parce que bu fekkoon ne ñoom am nañ idée hmm. pour Super Étoile ni mu nekkee waaw lool laa la wax man peut-être peut-être Youssou dina si def pexe ndax mi ngi commencé di defaat concert yi peut-être ah. xaalis boobu la ñuy dajale po euh, dem jëm koo fayee impôt yi rek. waaw ba concert de fayee weer. Hmm. concert mënoo ah, dëkk di tëgg. mais Youssou nag yàlla nga koy dimbali nag alaaji fu ah, mu tëgg nit ñi ñëw wuy si ko. waaw na bañ a tegaloo rek tëgg yi bu tegaloo gars yi dañu dem de bu dee weer bu jot nga tëgg <laughs> yaa ngi nit ñi wàññeeku de. dëgg la léegi dañoo song diine jeeg doole. ah waaw loolu de am ah, na te yëpp xam nga nguur gi avec au patronage ak yenn yu bari. Ah, eh, dafay jeex. boo defu ndànk dana wàññeeku de dafa am yu bari yoo xamante ni bii tey. Hmm. état yi caaxaan yi dañ cee nekkoon. ah mais Youssou moom ñàkk euh, au patronage ak am ko moom day day day ay affaire am day doon hmm. yooyu bu daan am damay leen. au yooyu DG yi dañ ci daan def kii léegi DG yi ñan la. ah waaw jàmm nga xam ni système a soppeeku de. mbaa du billet yi ngay jaay bari ah, am na yoo xam da daan da daan may yi sax am na ñoo xam dañ daan jënd bloc billet yu bari di maye. di maye waaw pour bëgg affaire bi kii nga defe ne affaire yi dina dee dem na ay billets cinquante mille ñan ñoo ko daan jënd ay billets cent mille. day am ñeneen ñoo xam ne ñoo ko daan jënd di ko maye. ah ba léegi moom moom lay def de ba léegi moom lay def. te affaire ba léegi ba kañ kañ la woon ah yàggul dara ah. fan yii si ginnaaw rek. fan yii ci ginnaaw waaw gars yi. ñu te mi ngi waajal yeneen. ah en tout cas am na ci kan bu fekkee ne gars yi en tout cas daal xam naa ne loolu moom. Hmm. du sori de. <laughs> d'accord incha allah ñu bàyyi la nga tàggatoo. Hmm. waaw joxante dig daje incha allah rabbi beneen altine ci kàttanu borom. incha allahu rabbi ayca mi ngi noonu ñu ngiy jaajëfal képp ko xam ne rek yaa ngi ñu doon bàyyi xel fii ci solution TV euh, di gërëm Abdou Top Abdoulaye Diallo ak Serigne gumba la jox leen di daje beneen altine ci l' émission des émissions.